Thank you. amul trois avertissement fils de Aldo fils de Prési fils de Aldo cokaas na léegi Fils de Aldio Fils de Prézi xale yi seen combat bi yàgg na Thank you. Fils de Aldo ñu ngay lewaato eh Fils de Aldo ñoo ngay xeex ñoo ngay xeex taxaw na ba daa sori ma ngay dóor Fils de Aldo ngay dóor Fils de Aldo Fils de fam jàpp baax na mbaa du ko génneewaat da puusaat mu génn ca caxabal ba mbaa doo daanu daan na ko Fils de Aldo Fils de Aldo daan na ko Fils de Aldo daan na ko caxabal na ko mu daanu Fils de Aldo tey ñu teew fii ci Fass point de presse Ada Fass moo fi woo wala promoteur bi sàkku ko mu dëgmal tàkkusaan bu rëy du ne dimanche du ne le 26 la ñuy wax fële ci arène nationale LP production collaboration ak petit promoteur ñu dëgmal tàkkusaan bu rëy Ada ak Coly Faye yaakaar naa ne tàkkusaan boobu ay ndaanaan yu bëri war nañ caa wane seen bopp LP production di xale bu ñëw ci làmb soxla ku ko jàppale ànd ak petit promoteur yi yaakaar naa ne journée bi amateurs yi ñu ngi koy waxtaanee Ada Fass ak Coly Faye numéro 2 mu nekk combat espoir combat jànq combat boo xamante bi ni réew mi yëpp ñoo koy waxtaanee comme ni mu demee woon démb ci soq ak franc léegi dañuy nuyu xale bi nga xam ne mooy Ada borom ndakaaru léegi sax rax na ci Espagne ak yeneen réew yi bu ko defee mu nuyoog mbokku internet yi ñu tàbbi ci waxtaan maa lay bu baax la Mbappé di la onze billah bismillah inna waliyallah jërëjëfe borom Touba jërëjëf nga dëgmal tàkkusaan bu boo xamante bi ni amateur yëpp dañ ne ci la taxaw nangul Ada Fass wala ñu bañal ko parce que ci combat bi mu am diggante Coly Faye mu combat boo xamante bi ni daf la war a da nga war a libéré gars yi xaw ma yaay daan xaw ma yaay daan xaw ma da ngay niin da nga war a libéré gars yi pour dem ci kaw est ce que xam nga li la koy may ak combat fi mu toll ci dayoo incha allahu rabbi moo tax ñu jël vol bi dem uti expérience ñëw combat bi xam nañ fu ñuy yóbbu xam nañ lu ñu lu mu ñu mën a indil fi làmb Modou Anta. Hmm. xale maa gën a. yow mii. xale maa gën a xale maa gën a trois fois. je suis encore jeune xale bu ndaw laa mais damaa gëm suma bopp. moo na qualifié de mag ma fuuf si làmb. jiitu ma si làmb moo la jiitu moo mag fuuf. Hmm. këli xale laa. waaw mais damaa mën a bëre macha allah te le 26 nañu xam ne xale maa gën a. yéen ñaar ku dàq bëre. man damaa yóbbu topp ba sonn Modou man. man ay ay riñaan yooyu noonu man man sama làmb dafa dafa wër man damaa daane prise bu nekk te incha allah rabbi la 26 si kàttanu suñu bopp. Siteu xoolal boo xoolee Siteu Zé ku muy doo yëpp day daal daw na jël ko xale yi bërëb seen finition dafa des dañuy daw song rek jàpp taxaw Siteu Zé Bébé Xarañ Siteu Zé door na Siteu Zé est-ce am carte avertissement waaw am nga carte avertissement. Ardo Baxaay est-ce que naacul abit doo xool kii abit atel waaw na ma ngay naacc Bébé Xaay ña ngay naacc oh. félicitation machallah da taalal micro bi soxo kele abi si lo war na Boy Village Bébé Lambaye Boy Village daa mel daa bëgg a jeexal lamb ji jël na tànk ba Boy Village Bébé Lambaye Boy Village Bébé Lambaye paaka mu daw B52 ñu ngi dox suñu ma dëgg waaw Tigo nee di xaar. sa diggante ak Tigo lamb du ko daal. waaw Tigo man combat boobu moo ma gënal si lépp loo mënta gis combat boobu moo ma gënal lépp moo mënta gis parce que combat moo ma gën a métti ma leen woo plateau bi. boo ma oowee ma def teew. Tigo kon dina ñemee ñëw. bañ a pare naa pour xaar ko moo yor njëmbalu célébrité ak célébrité Aïcha Boy Sylla mooy teekaleer bi moo war a soxla fii Aïcha Papa Ndiaye ay Cheikh Promoteur borom Cheikh laay yoo tey Cheikh ñëw na ay Cheikh ñëw na tey la sax barka na Ndiaye Cheikh Promoteur sama yoon la Ndiaye Bouloum Junior Boy Sylla Bouloum Junior moo gem moo gem Jaarou Daouda Fall man sportif laa suñu ma daanee damay nangu mais première action bi moom dafa teg cuisse ñu déposé recours nag CNG def li ko neex mais lépp dañuy xam ne ñoom suñuy kilifa lañ man suñu ma daanee damay nangu ñi ma doon daan gënu ma leen parce que yaa war na maa mën a daan man war naa ko war a mën a daan mais CNG moo ne képp koo xam ne dafa teg règlement am képp ku teg cuisse wala nga teg ah loolu jéele la moom ñëpp gis nañ ne moom dafa teg cuisse am xam nga continuer action xam nga dugal nañ suñu recours nag CNG rejeté na ko amuñu leen luñ wax da ngay ñaana yàlla ndam lu jikka mais combat bi ak par rapport ñaari combat yi ñuy jugee combat bi dafa yomb trop. waaw combat bi dafa yomb combat bi dafa yomb même man mii dama si am lu ma metti man ko ma xam xam na du ma bëree noonu mais conseil moo bëri si combat bi xam nga dama bëree consigne quoi dama bëree consigne parce que ñëpp dañu wax booy bi poids léger la xam nga teelul teelul teelul te mbër am na foo xam ne bu la fa yeggee non daf lay daan quoi mais lépp damay sant yàlla xëy na bés boobu noonu la waroon na mën a demee. waaw waaw non loolu lépp suma staff la rek parce man maa ngi doon posé cent dix kilos mais combat bi cent kilos laa bëree mais loolu lépp ñoom la quoi mais su beneen yoonee xam nga erreur yi ma dal si combat bi yëpp dootuma dal di ñaan yàlla xam nga yàlla mayaat ma combat bu gaaw waaye man dama sa morom booy dama la nga booy dama sa morom waay booy yow booy dama booy si nag Youssou Ndour ngi fi xew lu fi xew xoolal xale yi ñu ngay bëre ñu ngay bëre jël ba dina am atte atte atte atte atte atte atte atte atte atte atte ñoo ñu bëre ñoo ñu bëre ma ma bay bay bay bay bay bay billahi wallahi ñoo ñu bëre billahi wallahi yi xamul ne gaynde la mer boy man duma sa morom dama la bëre sa morom combat ba jeex na mais mais euh, dañoo gis dañoo gis man dama dama gisoon Youssou Ndour bu Koreyaas xeex mais ñu gis combat bi xeexuloo ci dara. lu tax xeexuloo loolu la quoi ñoo ne ma teel bés bi xam nga dafa am lu mu la war a yóbbu ma teey xam nga déglu leen mais man ko ma xam-xam ne du ma bëree noonu mais nag sant yàlla soo waree daanu cuuna ngay doon di nga ñaanal ndam li jikk man ma dem seeti leneen. waaw loolu mën na nekk xam nga mais man du ma xeeb mbër ndax Thiatou Daouda la du ma ko xeeb seetaan naa ay combat man xeebu ma ko quoi mais làmb ji keroog noonu la mënoon a demee yàlla sula waree xañ da ngay nekk cuuni mais sant yàlla rek. comme lan comme lan. non non waxuma si loolu. non non non non pas du tout pas du man damay respecté man damay mais doo ma bëree nit xam nga di di di di di tuutal sama bopp si moom. c'est normal ñu jaay bés bi xam nga te bés bi jaayoon nañ ko mais dañ doon jaay bés bi école de Balla Gaye ñoo maa ñoom amuñu benn problème man li ma ko wax dama ne ko waa Géejawaay gépp bu ñu la la dama lay daan te loolu laa gëmoon. yàlla nag moo dogale leen loo dama koy sant yàlla doo ma fi ne di dugal ay appel du ma fi ne di dugal ay rugu damay ñaan yàlla ndam li jikka man ma dem seeti leneen ki ma daan noonu xëy na moo ñëw mu daan ma dama koy sant yàlla ñi ma doon daan gënu ma leen di ñaan yàlla yàlla mayaat ma combat mu gaaw général bu faas su paree pare naa billaay wallaay taala général bu faas bu paree pare naa képp ku pare rek man pare naa général bu faas su paree man pare naa waaw xam nga man dama may caatu daaw dafa loxo kon ñeneen ñi war nañ mën a ñëw ñu bëre ndax moom si defet la jógee Vidacia ba may bëree moom si defet la jógee. loxo yi na de. mais na ñëw ñu bëre amul combat man xam nga man man si defet laa jógee moom si defet la jógee na ñëw ñu bëre général. non kii dama mënoon moom. Serigne Ba ma dara ci yow boo ma koy bëree dama ñu nga lële. yow ki la yow ki la daal dañu ko jox sama avance mu ndaw barki maam Seera Fall. waaw yow kan nga fi daan. barki ah, benn adversaire moo ko limee boo yëmbal rek moo mën say adversaire. kan nga fi daan. ma yenu ba ci kaw dóor ko ci suuf rek moo mën say adversaire amul benn bëri. waaw waaw waaw jàmbur. waat boo bëree ñu bëri. bu ma liggéey da ngay duma bëri yow waat yow li ma la woon. yow li ma la woon yow. waaye xam nga di sant ñëpp. di wax ne essantol yi Ndour laa gëm séedanse ñii gëj nañ si làmba booy moo waral loolu booy bi dama koy ñaan yàlla ko yàlla suturaal may maa ngi yëg lu garaaw mi ma ni maa ne si géew bi wóor na yàlla. andi mbër métti na. anda mbër ah métti na mbër mbër moo métti mbër moo métti. bi mooy deuxième combat am. ah bi mooy deuxième combat am ah bi mooy deuxième combat am incha allah waaw. na xam nga booy mu jël. waaw xam na booy bi muy bëreel booy bi muy bëreel tamit champion la mais dama koy ñaan yàlla yàlla may ndam booy bi muy bëreel champion la waaw mais damay ñaan suñu borom yàlla na may ndam incha moom na tey rek toog si tàngaam bañ a yàkkamti man wóolu naa ko. waaw. foo toll. nii ku bëgg am na ma dëggal si stade bi. waa ma yëpp tribune bi ba mu fees. mairie paaye yëpp ñëw. waaw. gannaaw yëpp gis gàmmu gay bu bees gàmmu gay bu koréas nañ ko tëgg bii tëngi. incha allahu rabbi ku ma dëggal fii nga gis leneen. gàmmu gay gis gàmmu gay nunuluk. àndaax waa Tëngéej yëpp mairie paaye gannaaw e yëpp xale ndaw yi bi ba mu fees. jàpp daan incha allahu rabi. mais fi mu toll nii ñan ñooy sa adversaire ndax Gamou Gueye nag ba léegi kenn gisu la dañ lay seen nii rek. waaw ah, mais man soq laa bëreel sunu borom jox ma defet ma di ko sant bu baax di ñaan wamaane combat yàlla ma yàlla may ndam man champion laa man dama bëre ay combat yu métti mais manuma daanu si soq ba pare ñu bëgg maa jox mbër yoo xamante ne ñi ma daan sax ñoo leen raw man loolu du ma def man sama combat dafa métti damay jënd ay bee yu bari boo yëpp dem stade mais. xam na combat amee moo ko naree jël damay sonn quoi. mais yéen booy lañ lay proposé ba nga bañ a mu jaral la nga toog di année balance. non damay bañ a wax seen tur. xam nga waxal parce que xam nga amateurs yi. dañuy seetaan wasaare lamb. mbër yi tamit dañuy seetaan wasaare lamb mais dama bëgg a xam yan adversaire nga bañ a bëreel ak ñan nga bëgg a bëreel fi mu mais boo ñi nga ñi la proposé boo waxee seen tur day man ni da ngeen di tuutal te man bugguma loolu comprendre nga. ñax a ñax a jariñu na ñëw ñu bëre. ma Moteur na ñëw ñu bëre ñooñu dama war a bëree ñoom. caatu booy bambara. non caatu booy bambara cat caat mooy caat wala tafa booy bambara. non caat booy bambara. waaye caat bu ñëwee day gën a baax wóor na yàlla caat bu ñëwee day gën a baax man dama war a bëre man dama bokk si làmba ay combat yu miti laa bëre yéen xam ngeen loolu te bu may bëre tëng ngeen ñëpp ay dem. lan ngay wax promoteur yi. promoteur ah, ko bëgg am xaalis na ma tëggal. ñu toll pare pour pour bëree pare pour mobiliser. pare naa pour bëree. pare naa pour man sa jour damay mobiliser xanaa gën a mobiliser waaw. kontaan naa di ñaanal booy Tëngéej yi fi bëri yëpp suñu borom may leen ndam di ñaan ñi amul combat Tëngéej yàlla na leen suñu borom may ndam di ñaanal Alu Kora yàlla na ko yàlla may ndam ah may combat alu moo Ronaldo Baye Nder yàlla na leen suñu may combat ñu bëre daan dama bëgg ñu bëre quoi. billaahi dañuy entraîné chaque jour amuñu combat dafa métti billaahi mais mbëri ñoo war a bàyyi maytun tabi waaw. kontaan naa ci kontaan baax nga. di si waaw wasaare laa bu baax. daanu rek di ñaan yàlla mooy ñu ndab lépp ñoom la mais combat bi yàlla yàlla ànd ak man sama bopp laa koy bëreel bëreel ma koy suba reer lu tax sa bopp nga koy bëreel non dama ko soxla rek di ñaan yàlla yàlla Diass Peulh ndaanaan la de non ndaanaan la nangul naa ko champion la fii kuy tax ngeen rek ndaanaan bi yéen ñaar ñëpp ngeen di wàcc ci lutte simple bi tey naka ngay bëree lutte simple ngay andi wala da ngay xeex lépp bëre fii bëre doo rek du lutte simple waaw ah. kon tey daal da ngaa war a wane sa bopp non ñaar yëpp lay indi waaw ah. incha allah doo sok man ak samay ma arbitre yi nee nañ ko yeneen arbitre yi nee ko yow yaa daan. maa daan jëli bu leer dañ naa ci kaw xool nañ ko bu leer dafa leer nañ lamb ñëpp xam nañ ko. amul xam nga li yoon xam naa li ma yoon may dëgg la mais ñun ay xale lañ ay xale lañ dafa ñaaw bu fekkoon yoon dalaa may ci saasi xam nga lii lii dafa war a am ci saasi maanaam ñu def recours bi ci saasi mais recours boo xam ne da ngay dugal dugal xaalis te ay xale lañ ay xale ndaw lañ barki karim di raam màggaguñu te dañoo bokk si làmb ku ñu gis xam dañoo bokk si làmb danañuy liggéey lu buun mbooloo dañuy dañuy lu metti billaay wala li ma ko si yaatee bi waxaat à waa buun làmb maa si dàq bëre ndax waa buun dañuy entraîné dañoo. xam nga li la yoon may demal nga def. jërëjëf. damaa rek xam na xale la moom liggéey la toll bëre ki moromam dafa war a gën a góorgóorlu yokk lépp lu mu doon def ba xam ne ay morom bëre boobu ndax mu leen la waxoon ñu demal góorgóorlu rek. day nekk premier grand combat ñu gis ne ndef stade bi confiance bi lan la. waaw loolu la war a def ndax këru mbër ba pare ànd mbër ma juddoo ci këru mbër ay baay mbër ay nijaay mbër kon ma dafa mbër incha allah. gis ne ndaanaan lay bëreel muy jaasi pël koo xam-xam ne ndaanaan la est xam ngeen ko. waaw man miir moo waaw mais ay morom lañ comme li ma wax rek suñu ay nawle ne ku nekkoon nga mën daan sa morom mais damay ñaan dal ma daan quoi mais nag xale booy bëri war a xam ne xale ngay bëre mu ñëw def vite fait mu bëri ci Fula Payda Fula numéro 2 Thiatou Linguère. Cheikh Ndoye à gauche Thiatou Linguère à droite. combat baa ngi noonu. mbokk yi Cheikh Ndoye mooy xale bi nga xamante mooy rakku Gamou Gueye. ñoo ngi lewaatoo songanteegunu jàppanteegunu Cheikh Ndoye numéro 2 mépp na léegi waaye demul Thiatou Linguère may na ko distance arbitre bi àtte arbitre bi sifflé waat na combat bi combat spécial eh Cheikh Ndoye numéro 2 door na léegi. ña nga caa. Cheikh caatu li ngeen caatu ndeysaan caatu lingeer nekk suñu ndeyjoor ndeysaan caatu lingeer Cheikh Ndoye caatu lingeer numéro 2 Cheikh Ndoye rakk ci Gamou Gueye moo féete à caatu lingeer moo féete à droite ñoom ñaar mbokk yi booy xool xaw nañu tolloo gàmmu gay xale bi daa mën a bër na teere toog ci ay tànkam Cheikh Ndoye numéro 2 caatu lingeer ñoom ñaar ku ci nekk am na benn avertissement Cheikh Ndoye numéro 2 am na benn avertissement Thiatou Linguère am na benn avertissement Cheikh Ndoye numéro 2 Thiatou Linguère Ronaldinho toogatul Gamou Gueye Cheikh Ndoye numéro 2 Thiatou Linguère Cheikh Ndoye numéro 2 Thiatou Linguère Cheikh Ndoye numéro dañoo tolloo ñoom ñaar Cheikh Ndoye numéro 2 dagg na lewaatoo bi Cheikh Ndoye numéro 2 Thiatou Linguère Cheikh Ndoye numéro 2 wàcc na Cheikh Ndoye numéro 2 eh laay lay caatu Linguère door na ko léegi Cheikh Ndoye numéro 2 caatu Linguère Cheikh caatu Linguère door na ko léegi Cheikh Ndoye numéro 2 Thiatou Linguère jël na jël na ko daan da daan daanoogul daanoog doon na mu daanu doon na mu daanu eh Cheikh Ndoye numéro 2 daan na laay lay la laa da ko doomu mu jugaat doo ko mu daanu Cheikh Ndoye numéro 2 rek ko gaamu géey ba def na affaire ak njaag maa ngi lay fay moom fils dañu gis nga ni sa poulet muy jaa si muy bëre ki nga xamante ni xale la muy Talfa mu nekk premier grand combat naka nga ko andee waaw ni ñu indee rek mooy li ñu indee jëm tayre di ko indee mbañ a tayre di ko indee di ko tey suba ñun dafa am ay xale yoo xam ne dañ leen di waajal pour ñu jéem a dem au sommet te xale bi ci la bokk xale bi dañu am yaakaar dëgg dëgg dëgg parce lépp lu mbër di am rek am na ko mën naa bëre mën na xeex te avenir u écurie la donc moo tax waajal nañ ko normalement pour mu ñëw gagné combat bi tey vraiment on a tiré tous les atouts pour combat bi tey mu gagné ko tey incha allah. mais kontaan yow laa ba jaa ngi daw. waaw jaajëfati waa ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ nee na leen bu ma siflee bàyyi leen bu kenn doo ci loos bu kenn màtte bu kenn mbëkke su ma siflee ngeen taxaw est-ce que di ngeen may dégg ñu ne ko waaw kenn xamul mbokk yi xoolal Laye Bruce Lee tàllal na ko ñaari loxo ya Laye Bruce Lee sa pekkees Laye Bruce sa Pekes à gauche mbokk yi il est 19h44 stade Ngalandou Diouf journée Amadia production Amadia def na affaire maa ngi nuyu doomu ndeyam Amet du nuyu Kanji Kanji production waaye daa daw léegi tëggatul làmb Kanji léegi amateur la sa Pekes laay brusili ñoom ñaar. Laye Bruce Lee teg na pied droite Sa Pekes teg pied gauche Laye Bruce Lee na lewaatoo bi Sa Pekes mépp na léegi waaye demul kan moo njëkk a dem wala kan moo njëkk a dóor Laye Bruce Lee daa mel ni ku bëgg a dem waaye boo demee loo fay fekk Sa Pekes mi ma gis Sa Pekes dem na. saa pekkees la biir siling saa pekkees daw na bi daw na jàppante eh, laay biir siling doon na saa pekkees taxawal na ko day daanu day daanu léo laay biir laay biir laay biir siling kaay laay kaay laay daan na ko laay lii lan ko mën fii ku fi taxaw félicitations sans faute. merci beaucoup. li ñuy liggéey xajul bi. mbër bu jantal bi. mu ngi dama kontaan dama kontaan. jàmbar. wallaay naka nga bëree ak moom. dama ñëwoon. dama ko mu daa songu ma longal longal sama yëf la ah du ma la sax koo jaxabal loolooy longal mbër bu jàndal baa ngi dama mën bëre. dama ma bëreel bu ñu foofu day taa ndax day def pax. fii lépp dootu ñu fi fubal. day taa. barki Mama su jàng lii. léegi ci des. sant yàlla. gërëm kër Mbaye Fall yëpp. Thier yàlla na ko yàlla fay. Babacar Sarr. l'international bi Bokar Ndiaye Pabis ama vétéran yi du ma tudd kenn vétéran yi sama waa koñ jàppale nañ ma quoi ay lëz sama doomu day zil samay kottu dañ ma doon teg lu métti maa leen di ñëpp écurie bi sama doomu nday laay brise junior ñoom coo boo yëpp maa di bëgg di ñaanal suba yàlla may ko ndam bu ngor dafa mën a fecc dama koy aj ba ci <laughs> ko gën a dégg du ma la sax fen nañu ñu bëree gaa dañ ma war jël non buñ ma jëlee dégg lu nooyi ma ne la fere ba yàqu di saw me di day yàpp juddu timis fer gee jongu samedi wër dimanche nee naa ko bu ma dawee ñongoli dañ leen kii ku yaayam waa gëj gise bi may naa la ko sàng Ousseyn jël ma jël ma bëgg maas jeer naa leen ah.